leen ko waxee rek ñu ngi taxaw président Ousmane Noël Dieng bu mu génnee nag kàddu gu am solo la wax nee na balaa muy dem dina jaar si ministre bi mu defal ko ñaan léegi waaw si kilifaam lépp mu wax dëgg yàlla te ko xam xamee ko mooy kàddam saa su xam nga àdduna lépp kilifa la te ku fàttali loo fal rek loo fal day yóbbu tey jii su ma su ma taxee rek dafa lu ma taxal yàlla suñu borom moo nag xéwali fu ñuy jaar boo ko gërëmat man boo ma gërëmee bëgguma man gannaaw yàlla sama xew lépp mu ngi jaar ci monsieur le ministre Diène Farba Sarr te li may def it su nekkul moom du ko mën donc moo tax balaa may génn foog mu dem mu ñaanal ma ñu génn ne ñu dox rek dem dem université ndogog ak étudiants yi euh, di ci oo ñëpp nag ne ko ñëpp def na ko ñëpp def moment yu yu neex lañ nekk moment moom moment ramadan dimbalante jàppalante soppante sopp lu bari la du xaalis kese su ma la gisee nga ma ree rek sopp naa la loolu rek social la social dafa bari façon nga ree ma ree social la yàlla ñu defal jàmm. show ay xam nga ko que li may wax rek Sénégal damay faral di wax ne ku fàtte lu la fal mu la man euh, yaa ma jël teg ma fi ma nekk euh, sans vous euh, ma def rek ba ñu di ngar ngawtee Ousmane Noël c'est vous yaa ma ma jël am confiance ma man parce que président de la république aussi daf la dénk projet bu gën a mag ci Sénégal muy la DGPU Euh, yow liggéey rek nga gëm. Euh, li yow te xamoo caaxaan. nga xam ne liggéey mënut a ànd ak politique bu bari. nga jël ma bu may sa doom. di sa xarit di sa lépp nga ma dénk naa la politique. absolument te politique bi ma gën a ci politique bi ma bëgg nga defal ma ko. mooy politique sociale. mooy lépp loo mën ci jaamu yàlla Ousmane dama dama ko defal yaa ma ko wax. Mm-hmm. nga jël sa alal jël sa doole. boole ma ay nit yu baax ku ñëw di ma dimbali may dimbali jaamu yàlla yi. Mm-hmm. et donc su may génn war naa ñëw nga ñaanal ma yàlla. Euh, jarul nga ñaanal ma yàlla ma am def université ci nga xam ne ñooy xale yi dëkk Saalum nekk fa des fois ndogu di leen tër waaye nag jaamu yàlla yi sax laa wax dañ koy defee xale yi dëkk Saalum mais jaamu yàlla yëpp nga xam ne des fois ndogute leen ci ma Ramadan ci weeru barkeel bi ma bëgg dem jël li ma joxoon ma bokk ak ñoom ñu àddil ko yónni yàlla Muhammad sallallahu alayhi parce que yaa ma lépp lu ñu am nañ ko bokk ak yàlla yi lépp luy caaxaan mun nañ ñu nga ne ma jaru ko wala lépp lu jëm ci yàlla dinañ ko def barki démb nga ma jox téeméeri junne ñu àddal ko yonent bi xale bi gagné woon prix digital Coran bu Sénéco bi nga ne ma teg si téeméeri junne jox ko billet Fès donc loolu moo taxoon ngay suma kilifa ngay suma bàyyi di sama lépp nag balaa may génn naa ñëw nga ñaanal yàlla ba pare a dem. une petite parenthèse avant de parler wolof Ousmane euh, est un homme excessivement compétent et intelligent un homme qui m'aime un homme politiquement qui a pris mon fauteuil à Kaolack et qui l'a occupé largement avec un poids extraordinaire et donc euh, l'écho a fait les frontières. Mais constater cette importance, ne pas s'y résigner, ni se complaire dans la passivité, parce que je peux dire que Ousmane a besoin parfois d'une voix autoritaire, a besoin d'une voix plus haute que la tienne dans, certaines, dans certains territoires. Et les critiques venant de moi sont pour Ousmane, je veux dire des caresses, parce que pour lui c'est un honneur. Voilà Ousmane qui est excessivement bien, qui fait un travail redoutable, extraordinaire pour moi. Et je veux dire que Kaolac, c'est à nous. Kaolac, c'est à nous parce que Ousmane l'a démontré. Et on reviendra dans les prochains jours. Inch'Allah. Là où les grands se dans les grands stades, et nos voix écho jusqu'au abon les plus lointains. Ousmane, en wolof. xale boo xam ni depuis quatre ans cinq ans li may dem sax Kaolack bariwul à part les grands moments mais moom fa toogal et puis di ma jox ay conseils yu baax aussi defaral jàkk yi. dafa jumaa yi loo gis ci lu baax ñu ngi koy def moom nag moo seddal leen tey ne day def ay mbir sax yoo xam ne man du ko yëg hmm? ni man maa ko loolu góor rek moo koy def hmm. naam dama koy jàppale waaye li muy def ci man peut-être sax duma ko def ci moom ay góor la suñu tasee c'est comme ça hmm. mais gor la et puis mouvement yi MJ DFS MJK tous les mouvements satellites yi nga xam ne ñoo ëmb vraiment kuréel yi ñu accompagner maa ngi leen di gërëm parce que Ousmane aussi mënul def dara il faut que ay accompagner comme moom li ma accompagner et donc loolu maa ngi ciy gërëm yàlla aussi parce que nekk Ndakaaru li nga xam nga loolu pour de Diamniadio du Lac Rose dafa nekk des choses aussi compliquées alors moi je me suis wax naa ko keroog président ma ne ko moi vraiment je me concentre sur ça parce que les résultats sont foog ñu def ay résultats parce que xam ngeen ne Sénégal actuellement comme dans le monde on traverse des périodes de récession économique c'est général et donc les périodes de récession mooy une chute du PIB et donc les Américains appellent même le repli du PIB pour deux semestres successifs mais en attendant on va créer de l'investissement privé vraiment pour la relance c'est important et ce que nous sommes en train de faire Et Ousmane le comprend très bien. Donc euh, il s'est substitué à moi, mais avec un taux constant. Ok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim malik yawm din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wal ardi yàlla jàpp dañu sant suñu borom bu baax a baax euh, fekk dafa fekk ñu nekk ci moment boo xam ne nag euh, ñu ngi koy wax show Ramadan muy weeru koor bi nga xam ne yàlla suñu borom moo ko tànnal boppam ci weer yi ne man maa ko feere sama bopp euh, mu muy doon weeru yërmande ñu ñëw fii nag ci bërëb bi di université nga xam ne suñu morom yee fi nekk di wax dëgg yàlla sàkku xam-xam te ku wax xam-xam rek di nga wax ne xam-xam mënut a mënut a ànd ak xiif ànd ak marwa ànd ak coono. wax dëgg yàlla moo waral euh, lii ci ndigalu suma mentor ministre monsieur le ministre Diène Farba Sarr euh, ñu tàmm koo def partout ci Sénégal waaye nag te bii paa nag ñu joxoon ci baaraam fii ci université ndongo yi nga xam dañuy jàng des fois ndogu bi di métti des fois ticket yi di di di di leen métti ñi jugee ba ci àll bi ñi jugee ba ci fin fond fu sori foo xam ne wax dëgg yàlla euh, am am bi du demee noonu moo waraloon tey ñu bool lu ñu am yëpp tey nar leen bégal nar leen bégal ñu lekk ba suur naan ba mànd ñu waxtaan kaf reetaan ci weeru yéen maana bi. nous sommes très aujourd'hui de vous revoir parmi nous ce soir dans le cadre de ce ndogu annuel de l'UREC l'union régionale des étudiants de Kaolack de la parole à l'acte vous avez démontré votre affection pour votre frère pour vos frères kaolackois encore une fois nous vous remercions et nous prions pour que le bon Dieu vous en rétribue convenablement. L'Union régionale des étudiants de Kaolack s'inscrit dans une logique d'ouverture, de transparence et de responsabilité. C'est ce que nous a permis, à trois semaines, de réaliser des résultats inédits que toute personne ici est en mesure de le constater. ñu ngi kontaan bu baax a baax di la recevoir ak fii di la wax ne dala ak jàmm say kanamu rakk say kanamu sœur wasalaamaaleykum wa rahmatullah je pense que le discours ne sera pas trop long parce que aussi charte weeri koor dafa bokk ci dog jotee nga dog ci saa si damay sànni ay kàddu sant yàlla rek ay kàddu cant rek laay sànni après ñu tëj ndogoo ndoor kaf ree waxtaan ma ñëwoon fi ci ndigalu ministre Diène Farba Sarr di sama mentor ma ñëwoon fi am dige yi fi waxoon yàlla bu ko neexoon ma digee ba pare du am soit du ma ko def ngir fàtte ko yàlla fàttale ma ko soit du ma ko def ngir sàggan soit duma ko fekkee kon yëpp war naa tax ma dëxëñ sante ko saa borom di ko wax alhamdulilahi rabbil alamin di leen gërëm yéen jaamo bi yàlla yi toog fii di étudiants yi nga xam ne fii gis naa fi ay kàngam gis naa fi ay futur président de la république pourquoi pas ay ministre de la république yéen ñi war a yor suñu réew bi ëllëg ay borom xam-xam ay borom xam-xam kàngam ñëw di xaar sama jëmm ju xeebu gi ngeen pare na ma seen bés bu sell bi ci chëw Ramadan ngeen xam ne su ma yëkkatee kàddu seen kanam rek yaakaar ci yàlla mu yegg moo tax waaye du njiit du xam-xam du lu ma mate lu dul rek ah ñëw wax dëgg yàlla lu ko waa ji waxee. l'honneur ne se refuse pas ñu jox ma honneur bi ma ñëw di waxtaan ak yéen maa ngi la ñuy gërëm di leen sant te di leen baalu ak ci koor gi te di leen ñaanal yàlla ci daraja yonent yàlla Muhammad képp ku fi dugg di sàkku xam-xam yàlla nga mokkal diplôme yi nga ñu ut yàlla na ko yàlla may ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wasallam yal na yàlla garanti leen ngeen dugg ci bismillah rahmaani rahim waaye génn fekk alhamdulilahi rabbil alamin ak liggéey ak mucc jàppale seen njaboot ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam maa ngi Bamba Sène mi nga xam ne franchement sa discours bi lu am njëriñ la discours bi tamit say jàngat ne da wax étudiants yi ne leen mbir waroo ci dugg mu métti nga daw discours bi dama say jàngat ne da ngaa wax étudiants yi ne ah mbir bés boo su duggee wax dëgg yàlla nanga nga nga xam li la jaral na xam ne lii moo fi indi ma def ko ba génn ci pour mën a dem ëllëg njëriñ sama réew loolu laa jàngat si discours bi. ne lu yomb amul ci àdduna même suñu référence muy yonent yàlla Muhammad mi nga xam ne yàllaa ko faral ba mu koy yónni ci àdduna bi di façon jafe-jafe bu ne jànkoonte la ko et donc lu facilité lu yomb amul ci àdduna waxuma la nag jàng jàng lu am solo la et donc warul mën a yomb waaye je pense que judduwaay je pense li may dox man li may xeex mooy yéen étudiants yi fexe ba seen judduwaay jàng mën a yomb man de bu ma yàlla waxoon ne ma Ousmane Noël boo dëggoon fii boo taxawoon fii étudiants yëpp dëgg la étudiants yëpp nappaaje si sa kaw seen condition de vie mën a gën a jàll ci kanam seen condition de vie mën a gën a leer gën a ñu mën a gën a jàng am diplôme barki yonent yàlla Mouhamad barki Cheikh Tidiane pare a pour yàlla teg na tuboobu pour yéen ñëpp ngeen réussir billaahi lazi laay laa wóor waaye nag ah yàlla ni yàlla mooy dogal ay jaamam ngeen jàpp ne ngeen jàpp ne yàllaay dogal nekkul ne képp ku ñëw université rek war ngaa réussir par force réussite yàllaa ko yor waaye nag defal defal sabablul sabablu mooy ba nga nekkee ci aw fin fond di jàng ci ay sàkket toog ci taabul ban di reyante di di di ci ay sondel sa waajur amul doole di la dimbale nga reyante fa fighting ba am bac ñu université kenn ëpp la mérite kenn ëpp la mérite nga ñëw université yàlla nag lu ci des yàllaa koy dogal yàlla mooy wax ne diw université bi li mu rëy rëy rëy yëpp UCAD li mu rëy rëy yëpp diw sangam diw sangam diw sangam diw sangam yéen a ci am niveau bi te yéen a ci jëriñ seen réew ñii duñ ko fekkee ñii dañu cartouché ñii dañuy faatu yàllaa ko dogal yàllaa ko dogal ci li may wax am na fi gis ngeen ko fi waaye maa ngi la ñuy ñaanal képp ko fi nekk yéen ñëpp yaa ngeen bokk ci njëriñ seen réew ci daraja yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a ah di gërëm Mouhamed Mohamed waxoon naa la ne yow yaay Seydina Mohamed yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na Seydina Ousmane mam naay Seydina Ousmane ba nga jëlee mbir mi bees waxoon naa la laa taxaf wala taxzan inna laa maanaa waxoon naa la bul tiit bul ragal yàlla ngi sa yàlla ngi ginnaaw mi sa kanam newoon naa la xale nga ndaw nga man ndaw laa xale laa te yàlla nag du yónni ku ñaaw du yónni ku siis du yónni ku nday du yónni ku iñaante dara jarul la et donc góor euh, góorgóorlu lii cër bi yàlla jox la yàlla na koy joxe joxloo joxloo ko parce que nga xam-xam gars yi. maa ngi euh, di ñaan président de la République Macky Sall ne ko li ngay def ci lu social li ngay def ci lu baax ñëpp gis nañ ko waaye lépp loo mën a gën a jàppale étudiants yi ndax soxla nañ ko tous les étudiants nag waaye plus particulièrement suñu étudiants yi Kaolack waa yi maa ngi o autorité yëpp autorité yëpp bu campagne jotee ñëpp ngi dem Kaolack yéen a ngi gaare 4 x yi. yéen a ngi gaari di fekk ci gars yi xam ngeen fi nga la ñuy fekk baax et donc bu yi mel ne ñëw leen jël ci alal yi jaamu ci yàlla ci étudiants yi ñëw jàppale leen si seen xaalis si seen social étudiants yi mën a franchement gis seen bopp aussi ci mbir mi ndax kat saako bu deful dara du taxaw jàng balaa nga naan naam da nga fay ne ñun ñoo leen mën a jàppale autorité ñoo leen mën a jàppale Kaolack yaa kenn xamul ñaata autorité moo fi nekk bala nga xam ne Kaolack bëri na autorité nga dem campagne wala président Macky Sall bëgg fay ñëw nga xam ne Kaolack bëri na autorité loolu ñu jël nag alal boobu nañ ñëw jàppale leen kii bu ñu indi un million su kii ñëw indi deux millions kii ne trois millions ñi jël leen ay appartement ñi jël leen immeuble pourquoi pas immeuble étudiant yi mën a dëkk mën a toog pourquoi pas pourquoi pas am na fi gars yi mën nañ ko ay meetingu ay meetingu cent vingt millions ay meetingu soixante million millions ku ci jëloon immeuble fay ko un an mënu la mënu la yóbbu cinq millions loolu ni ñu ko def li laay war a suuli jàppale étudiants yi jël leen immeuble mu amee appartement gars yi logé yi mën fa dëkk nekk ci anam yu gën a nice anam yoo xam ne wax dëgg yàlla dinañ mën a jàng jàng bi xam ne ëllëg Sénégal la ñu jëriñ di gërëm aussi euh, balaa nga naan ne fa suma mentor suma papa suma xarit monsieur le jën fa ba saar parce que sànq rek booy taawul wax na ko yàlla suñu borom ne na ful xewel di aw soo ko gërëmut man yàlla bu ma gëree ma bëgguma man nag sama xewel mi ngi awee ci monsieur le ministre Diène ba saar mu awee ko ci président de la République Macky Sall que Dieu vous garde yal na yàlla defal leen jàmm ci barke Seydina Muhammad